ci France. mooy souvent dafay bëgg dugg ci suñuy mbir trop parce que moi je pense que déjà li nga xam ne wax nañ ko naan déjà dañoo nekk pays boo xam ne day waaj produire pétrole forcément terrorisme pour lan au finish sax mën nañ ne si eux qui parce que si vous vous rappelez exemple euh, Covid 19 ba mu fi am mais gars yi lan lañ fi waxoon nee nañ Afrique day jeex mm-hmm. nangam dugal peur ci ñun ñëpp mais au finish fa la mujjee. gars yi nañ ko et finalement Afrique mën naa ne c'est sorti indemne donc nag bu fekkee pétrole tam dafay ñëw ñi bëgg ñu tiital noonu naan yaa menace terroriste c'est eux qui nous terrorisent finalement maintenant nag li ma bëgg wax mooy boo seetloo Qatar c'est un pays pétrolier mais est-ce que am na fa loolu pourtant gérer nañ seen pétrole te am ñu benn problème pourquoi en Afrique saa ñu sentir ne fa te am na benn dëkk boo xam ne mu ngi commencé am ressource rek ñoom dinañ am loo xam ne dinañ ko ci wax comme si dañuy préparer à menace mais menace boobu fan la war a jógee est-ce que ñoom xam nañ fu muy jógee fu muy jógee parce que ñun parewuñu pour yàq suñu réew. donc nag aussi les grands garçons. non ñu wax li ngeen di def fi ngeen jëm li ngeen waaj leen lii dugg leen fii génn fii mais ñun xam nañ lu ñu bëgg suñu réew aussi c'est important aussi des fois aussi ñi bàyyi itam duñu duñu yoo xam ne ñun xalaatuñu ko parce que ñun xalaatuñu loolu xalaatuñu yàq suñu réew déjà sécurité bi nga xam ne peut-être mu ngi fii au niveau interne ñun jàpp nañ les autorités ñoo ngi def li ñu mën ci li ñu jàpp dinañ sécuriser suñ dëkk ba nga xam ne peut-être lii nga xam ne mooy menace terroriste boobu ñuy wax boo fait du fi egsi sànq doyen wax na ko déjà ci plaidoyer boo seetloo terrorisme bu nu mu nekkee fii en Afrique mais ñoom mosuñu ko éradiquer day gën di yokk rek donc ñoom qu'est-ce que pour lan ñuy prédire loolu donc il faut qu'il aussi c'est ça fi fu nekk fan lay mujjee mais donc il arrête aussi de s'immiscer dans les affaires internes de de l'Afrique parce que tam l'Afrique aussi màgg na am na ay jeunes yu bëgg a relever le défi nous on a une autre façon de voir les choses on a une autre façon de faire donc nag il faut que ñu di ñu prédire ay affaires yoo xam ne des mauvaises choses man loolu